asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli sal salai sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dolli dal dolli jàmm si réew mi ñu ngi nuyu El Hadj Bougane di ko ñaanal ñaanal njabootam di nuyu Sénégal yëpp tey dañ ñëw si émission bu am solo muy la accident vasculaire cérébral AVC ñu moom AVC rek lañuy wax bu nekk lu doy nag ndax attaque la boo xamante ni dafa gaaw lu muy faagagal nit li koy sabab bari na mais soupçonné nañ si benn caillot de sang boo xamante ni maanaam deret ju woy si siddit bu ñuy wax artère mooy benn cas bi ñu leen di wax AVC ischémique parce que ischémique moo am ak cérébral bu dee cérébral bi si yuur gi wala li wër yuur gi lay nekk wala siddit amee problème siddit mën na éclater bu dee nag AVC ischémique bi li ñuy wax artère mooy sidd boobu di jëlee deret ji si xol bi di ko sànn si yaram bi moom la lumbu dret di di dajaloo mën na dajaloo benn place ñu tudde ko thrombose cérébrale su ko defee dafay fatt sidit bi maanaam fat sidit ba di parce que boo xoolee yuur gi ay sidit dafa jóge jëm si xol bi yiy jógee si xol bi jëm si yuur gi su ko defee su dee yoon woowu fatt na maanaam deret ja partie ba mu waroon dundal si yuur gi dootul dund ndax dootul amati ngelaw li ñu wax oxygène mooy la war a dundal foofu ak la mu war àndal si ay euh, vitamine ak yeneen i produit élément yooyu bu demul rek organe boobu dootul dund dafay daal di li ñuy wax mort la mort des des cellules dafay dee cër boobu mooy waral léeg-léeg partie bi nga xam ne moom la commandé dootul mën a fonctionner bu dee loxo bii la day daal di commencé di bàyyi di paralyser bu dee tànk bi la day daal ci tànk bi day paralysé donc partie boo xamante ni laal na ko rek daf koy daal di paralysé ndax dootul mën a dund moo tax mu garaaw kon loolu mat na bàyyi bàyyi xel bu baaxa a baax a baax beneen bi mooy embolie cérébrale bu dee embolie bi lumb bi mën na formé woo feneen mais deret ji moo koy yéegal mu fatt si dit ki koo it dafay àndi jafe-jafe ndax day paralyser cër yi nga xam ne foofu jëm si yuur gi kon ñaar yooyu bu mu sa am rek baaxul benn bi mooy AVC bi nga xam ni siddiit mooy fatt si yuur gi wala si biir yuur gi boobu nag dafa garaaw ndax boobu mën na éclater su éclater mooy indi hémorragie interne te xam nga ni foofu fa mu nekk dafa sori sori goo xamante ni pour daal di def intervention dafay nekk lu compliqué. heureusement que ka boobu moom mooy cas bi gën a new sa AVC yi ndax 20 pour cent téeméer boo jël xëy na ñaar fukki lay lay dal mais boo xoolee téeméer bu ne juróom-ñett fu yi muy dal yëpp daanaka AVC ischémique la ñu kon nekk lan doy waar lii jur nag. accident vasculaire cérébral boobu bokk na si léeg-léeg li ñuy wax plaque de cholestérol mais plaque yi nga xam ne dafay ànd plaque bu mel ni graisse lay doon mooy diw bu mboq boobu nga xam ne booy jël dund dund boo xam ne da ngay jël lu niin lu bëri lu gras lu mel ni yàpp bu gras bari graisse lu mel ni beurre lu mel ni lu mel ngay jël lekk yooyu lu bëri wala pâte d'arachide bi mën na jur loolu plaque yooyu plaque yi ñooy taxu si artère bu demee benn moment mën na créer kayo muy lumb lumb xam ni ngay lekke dafa am solo fexe di jël légumes ak fruits yi surtout crudités yi lu mel ni carotte bi lu si baax la da ko day jël daf lay dimbali lu mel ni jinjeera yooyu daf lay aidé ba sa deret di mën di circuler normalement ba nga xam ne du woy kon nekk na loo xam dañ si war bàyyi xel bu baax a baax a baax nekk na loo xamante ni aussi boo amee tension na ko war a surveiller ndax plaque yooyu mën na causer comme tension bu yàgg si nit mën na causer ndax tension boo ko amee dana ba benn mois aussi sidit dañuy perdre seen motricité su ko defee laa dafay indi lenteur bu deret yi daw mën na dem ba indi lu dajaloo wala dread bi gaaw ba créer éclatement vaisseau kon loolu mën na ay jafe jafe-jafe kon ñu bàyyi xel baax si tension boobu change suñu lekk wàññi xolomu guddi bi wàññi neen yi di jël légume ak fruits suffisamment tey naan ndox tey def activité sportive aussi yaa xam da ngay def daw yaa nga xam da ngay def marche yaa xam da ngay def natation yaa xam da ngay def vélo mais lu si ma doon ngay yëngatu te oyofal sa lekk te surtout ñuy contrer li ñuy lekk guddi gi te bàyyi diwlin bi ñuy rosi di ko saaf baaxul diwlin li gënoon nga togg ba nga soog si def si diwlin waa nga teg mu tàngale nga def li ngay def kon loolu ñu bàyyi si xel baax a mu nekk nag yoo xam ne dafay ànd ak ay symptômes AVC buy attaqué nit ki dafa am ay mandarga yu mu àndal dina bari lu muy jàpp benn bët bi li si nag benn bët bi mooy flou du ñàkk ñaari bët yi ba lay tàppatoo koo gis rek mu tëb rek am métti bopp bu tar nga gis benn bët bi commencé lëndëm kanam gi la léegi di mel dafay sadd am engourdissement loxo yi diis mu am jafe-jafe pour wax pour génne même benn mot wala mu am jafe-jafe même pour bind wala mu am jafe-jafe pour comprendre nga wax ak moom du la comprendre xamal ni mu ngi commencé li ñuy wax symptôme AVC accident cérébral donc symptôme yooyu saa yu ànd ak méthode bopp tar rek na nit ki teel a jigee service sanitaire yi xam ni urgence médicale la ndax AVC du feebar bu ñuy bay bay loolu ñu koy tar bu la dalee immédiatement demal hôpital seet docteur bari nañu am ay jafe-jafe tey leen ko indil dañu fa daloon ñu bàyyi mu fanaan di xaar suba mu far indi loraange ndax li médecin yi mën a gaaw rek la ko si saa si bu jëlee temps ñu ko mën kon nekk na loo xam ne bu la dalee directement hôpital war a dem gaa yi jël seen i disposition loolu mat na xam bu baax a baax a baax wàññi cigarette aussi ak sàngara cigarette sàngara moom dafay vraiment nekk loo xam ne dafay yokk mbir yu mel te boo amee tension aussi ngay xaw a def tànk si contraception euro yi maanaam yooyu ñuy jox jigéen ñi pour ñuy def planification familiale aussi dafay favoriser aussi jafe-jafe yi indi AV AVC ñu bàyyi xel bu baax a baax a surtout boo deen fi yaram. question yi ni ñeen tey ku njëkk def daal moom daal dafa frigide maanaam buy ànd ak boroom borom këram daal du yëg dara waaw li koy sabab nag bari na am na si yuñ mën a faj ak yuñ mënul faj ndax bu dee ki nga xam ne dafa xarafal moo ko jox faj ko dafay jafe ki daggoon ay soccet fekk soccet ko joxoon ba fay jafe moo tax soccet boo ko amee da koy faj bañ ko dagg dagg bi dafay indi frigidité mu ñàkk yi bànneex booy sëy kon loolu mat a bàyyi xel la nañu di sóoraale loolu boo amee soccet faj ko des infection à répétition boo ko amee mën na ko indi mais daal nañu digal ñaari mbir muy reenu siddéem ak xasum yiir yiir daal ak siddéem moom danay gunge jigéen ñi nga xam dafa am jafe-jafe yooyu daf koy baaxal di ko naan bu ne ñett rek mu baaxal ko question mujj bi ki neen daal dafa bëgg ñu fàttali ko daal ménage boobu ñu fi joxe woon te muy dëgëral awra kooku diwu xabar soo laaj waxoon moom ngay ji diwu xabar soo daal nga wut sungufu dambal sungufu dambal boo ko amee am lu ñuy wax makalinta jaxase ko xabar sawda ak karité di ko dampe awra bi si kàttanu yàlla yàlla na ko may jëm dana ko dëgëral ñu leen tàggu fii di leen jox rendez-vous seen émission gërëm jërëjëf